te TFM mbokk yan ànd ñun ci euh, seen émission faram fàcce ñu ngi leen di nuyu am mbégte dellu si ci ak yéen ni ñu koy amalee àllarba bu jot euh, tey ñu am mbégte di ci dalal maire bu Médina Bamba Fall la ñuy recevoir mbokk yi tey euh, ci spécial débat faram fàcce monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. monsieur maire ma bàyyi leen nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw jërëjëf Papa maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu. Euh, waa Médina waa Dakar ak diaspora bi yëpp. Mhm. Euh, nga may ma rek comme que dañu jóge ci ay ay mbir ma gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci jàppoon. mais est-ce que yomb. <laughs> ñi ci jàpp ñëpp gërëm bi dina compliqué. waaw dama koy tënk du ma ah, tuddi tur du ma tuddi tur ah, d'accord. Mhm. maa ngi gërëm donc euh, imaam yi ci jàppoon ñëpp ak surtout samay avocat surtout parce que seen taxawaay dafa rafet. Mhm. parti politique yi ci jàppoon yëpp yëpp yëpp yëpp tamit. délégué de quartier muy bàjjee na gox di notable. di ASC yi di sama famille di daayira yi di grand place yi confréries yi tamit muy murid yi tiijaan yi laayeen yi ba ci catholique yi di gërëm commerçant yeeg ambulant yeeg cordonnier yeeg yëpp ak socialiste yi ma àndal nag ak parti ba ci karimiste yi di gërëm tamit personnes âgées yi taximaan yi ak mairie commune yëpp nag te bi ma ci gën a marqué mooy mbay jonn mi ñëw wax ba jooy je pense que tamit di gërëm tamit euh, autorité étatique yëpp bëgguñu ma tudd seen tur détenu yi ma fa bàyyi garde pénitentiaire yi aussi di gërëm aussi presse bi yëpp yëpp yëpp tamit di gërëm artistes yi ak mbër yi ma fa fekk ndax ku mel ni Youssou ku mel ni Abindour ku mel ni Kumba Gawlo ci mbër yi ku mel ni Modou Lo ñoom ñëpp dañu déplacé wu ñëw di gërëm tamit képp koo xam ne rek jàppoon na ci ak doon na ñaan ndaxte foofu du ñëpp mën a ñëw mhm. am na ñoo xam ne mënuñu maa seet mënuñu maa gis ci kaso am na ñoo xam ne bu ñu wutee permis dañuy am jafe am ko mhm. moo tax ñoo ñëpp jàpp nañ ni ñaan lañ doon ñaan egsi na kon maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment di leen wax ni li ñu doon def yëg naa ko sama xol. Mhm. seen ñaan egsi na. yaakaar naa ne fi ñu toll nii li ma war rek mooy ñaan yàlla. bon monsieur le maire itam. ñaan yàlla yàlla may ñu doole. voilà ñu mën leen fay li ñu lebal. très bien alors c'est la bi mooy bu njëkk boo mos a duggee kaso. waaw man mosuma sax dem police. muy ci réew mi muy bitim réew. parce que Modou Modou nga. dama ne ci réew mi ci bitim réew. waaw police sax mosuma faa dem. d'accord maa ngi doog a xam police ak kaso mooy lan mosumaa dem police. mosumaa dem kaso. alors nan nga ko dundee prison bi nan nga ko dundee sa guddi bu njëkk ci kaso bi. li ci njëkk guddi bu njëkk bi rek ñu am ci ñu. dañ avant guddi gu njëkk gi sax centrale bee gën a métti kaso bi. retour de parquet yi dañ fa def juróomi fan foofu nag euh, metti woon na lool ndax boo duggee centrale ci suuf ngay tëdd benn douche la am ñu boole la ñëpp nag képp ku ñu for rek dugal nañ la ci biir te ngay kilifa ci dëkk bi yaakaar naa ni lu metti la. bi ñu duggee kaso aussi guddi gu njëkk gi chambre bi ñu may yóbbu gaa chambre bu nee nañ moo ci tane waaye 36 person la woon waaye sant yàlla parce que duggaale nañ préparer nañ suñu bopp duggaale fois ak ngëm-ngëm. xam ne tamit magum diine yu bari dañu faa jaar. moo tax pratiquement méttiwul woon loolu ci ñun ndax xamoon nañu suñu destin fa la ko yàlla jaarale. donc central nga wax moo gën a métti sax prison. waaw parce amoo mat la boo tëdd ci ay bassin ngay tëdd central amoo télé duñu la bàyyi nga lire journaux duñu bàyyi avocat seet la duñu bàyyi mbokk seet la amoo téléphone boo wootee metti na trop parce que noonu ngay tëddee ba suba bu dee weekend bi nag moom seetal benn fu ñu la tëj foo xam ni benn toilette boo xam ni amul sutura nit mën na laa seen ci ngay nekk vraiment retour de parquet boobu yàkkamti woon nañ sax ñu yóbbu ñu rëbës tëj ñu benn yoon ndax metti na loolu. Mhm. li ñu li ñu bëri jàppee nga baal ma mais tappale ci feebar est-ce que du mitit boobu moo tax nga mu nekk alibi rek ñu ne Bamba faal feebar na salit boo xam ni ñëpp yaakaare wuñ la ko woon wax ñi la doon dégg ak fit ak fulla jàppoon nañu ne doo egg foofu loolu moo ko indi woon wala lan la. no loolu retour de parquet laa la wax. bokkul ak kaso man waxuma kaso ba laay wax. ndax mitit bu retour de parquet yi ba nga dem kaso moo indi ñu teg ci ay fan parce que def nga fa téeméeri fan ak fukk ak juróom-ñaar. Mhm. moo tax ba nga demee ba tàyyi mu miti nga daal di saalit. xam nga feebar du du nit moo koy def boppam yàlla moo koy teg nit. Mhm. feebar boobu dal na ma avant mooy dugg ci kaso mais nit du ko gisee. nit du ma ko fexe parce que duma ko waxaale du ko sooxaale. d'accord bu dara mhm. jotee dama koy def. mais quand même sama avocat yi bi may dugg waxoon nañ ko doyen des juges. te mu ngi woon ci rapport yi waaye tamit musuma parce que kaso feebar génnewu ma kaso te bañ may yóbbu hôpital tamit du man maa ko demandé maa ko demandé bugguma woon sax dem ndaxte yàgg naa metti foofu mais mhm. yàgg naa fa feebar mais ñaari nit du ko xam parce que boo duggee ñu ne la fii am na ñu fi jaar doon jàmbar metti na lool ku mel ni Karim Wade par exemple daan na fi kii mel nit daanu ko yëg parce que boo waxee mu ni ay faiblesse la du ko nangu wone kon bis boobu dafa moo tax li am ci mais yàgg na métti. te du ma ko jàmbat. kon nekkuloon ñu bëri ni ñu yaakaare woon daal mbiru. non bu doon loolu kon damay demandé ñu libéré ma ndax sama maladie mais kenn libéré wu ma ndax sama maladie. liberté bi du liberté bu ñu ma libéré ndax maladie dama demande def demande de liberté provisoire garantie ñi laaj yëpp am naa ko ñu rejeté ko ci rejet bu njëkk bi lu tax ñu rejeté ko parce que dafa am ñu bëri ñu nekkoon ci télé yi moment bi ma nekkee ci kaso bi. Mhm. man damaa foog ni sax dañoo yëpp Sénégal parce que ay député ay kilifa ci parti socialiste naan waaw police moo def enquête am ba jàpp ko déedéet loolu amul man bi may jógee fii sama bureau ñu may convoqué dañu ne ma kaay yu dikk ndaxte dafa am confrontation booy def ak ñenn ci ñenn ba ma demee ñu ne ma waaw ñu de confrontation lañ la waxoon waaye procureur neen nañu la déféré donc bi ñu ci noonu lañ ma déféré. non monsieur euh, monsieur le maire su la déggee mooy kenn mësul a entendre ci dossier 5 mars bi amoon maison du parti kenn mësul la ci entendre. non demal la dossier boobu mës nañ ma ci entendre. voilà ok biñ ma mhm. bi def na plus de neuf mois. waaw pas wante. benn yoon lañ la ci entendre. benn yoon lañ ma ci entendre bañ ma entendre dégg ngeen li ma leen wax parce que 5 mars boobu ba yow mal xëyaam nit duma ci mën a jiiñ lenn la ma waxoon rek laa waxaat ba tey jii moom laay wax. cinq mars boobu nit profité na ci def ma li may def waaye yàlla ci suñu borom xam na bu dee dama cee tooñ nit bu dee dama cee gaañ nit. Mhm. waatoon nga ko fii. waaw non may ma may yëgale mhm. de may ma yëgale. Mhm. c'est important da nga ma invité pour ma wax. d'accord bu dee dama cee lor nit wala ma tooñ ci nit. yàlla na ma ko yàlla woon ci àdduna bu dee dama cee yebal nit mu gaañ nit wala mu toroxal nit. yàlla na ma ko yàlla woon fii ci àdduna bu dee dañ ma cee tooñ nag sosal ma dugal ma ña ko def ak ña ca bokk ak ña ko comploté yàlla nañu yàlla àtte ci àdduna ak yow ma xayam d'accord ndaxte tamit auditionné nañ plus de cent soixante di personnes kenn newul ni Bamba Fall ma gaañ wala moo ma dóor te kenn waxul ni Bamba Fall daf maa fay ma gaañ nit wala ma sosal nit donc yaakaar naa ni boo gisee combat bi ma comprendre li tax ñëpp dugg ci parce que tey pouvoir yi nga xam ne procureur am na ko ku nekk mën na laa dal réunion piscine olympique yi lan moo ko ci indi sa tur parce que loolu lu feeñ la ci enquête yi ko nit wax ko. dama ne la bu ay ay filature ci téléphone ak leneen. dama ne la waaw man ci sama bopp man maa ne juge d'instruction bi li may wax parce que tey. dossier bu pendant à la justice jaaduwul sax ma ciy wax waaye te Sidi Aboubacar dafa ni bu dee dañ laa tuumaa la dul dëgg boo weddiwul yaa dëggal. parce que tey buñ ci waxul woon du ma ci ŋàng parce que ku gëm république laa. mais piscine olympique teguma fa sama tànk maa ni ko samay numéro téléphone ak nii def leen géolocalisation àdduna du yàgg ba nit ba ma nekk ci réunion piscine olympique amul ndax géolocalisation day wane date yi ak heure yi fa nga nekkoon à part de sa téléphone man demuma piscine olympique tey demuma piscine olympique suba man fay man gaañu ma nit nit du ci 14 millions de sénégalais yi nit du taxaw ni maa ko gaañ. ci 14 millions de sénégalais yi nit du taxaw dama ko faa yebal ñu ko demal gaañal ma nit wala demal yàqal ma lenn yaakaar naa ne jomm naa loolu. te tamit li ci gën a métti mooy tëdd kaso boo tooñee da koy gëm parce que dañ naan dama juum kat moo tax ñu yar ma bi ci métti mooy bi nga deful dara te ñu téy la fa te bari na ñu fa toog loolu dal leen. billaahi wallaahi wataalaahi ak sama tëraayeelu bàmmeel laa la waatal bu dee li ma lay wax amul yàlla ma gisanteeg rasulillahi tooñu ma te xeex bi sax fekk ma fa xeeru njëkk yaa ma fekk ma génn ne xale yi lii ngeen def ça n'honore pas le parti parti bi li ngeen defaan am na ñu koy defaan ci biir yàlla buy defar. ndekte li may wax am na rajo yu ko jël en direct ndekte am na site yu ko jël en bi ñu ma convoqué sit yooyu ñoo ma jox enregistrement bi ci clé maa ko jox dig ne ko déglu leen lii laa fa wax. ndaxte dafa am ñu ne ci salle bi nii li tax ñu téye ma ne dafa am ku ne ci salle bi que nii gis na may wax ak ay nit ci biti gannaaw bi xalifa waxee te man dama doon defar rek. bi ma demee xale yi déggaluñ ma ma ñaan parole ñu bañ ma daal di ñibbi sama kër ay boole midi une heure. cinq heures la xeex bi. kon buñ ma ci boolee. Mhm. yàlla bés dina atte. yàlla nañu yàlla atte mu leer ci àdduna ak ci àllaaxira. d'accord monsieur le maire plainte bi naka la demee contre X la leerul contre Bamba Fall lan moo indi plainte bi la yóbbu kaso. non plainte bi dama ne bon de la parce que plainte contre X amu fa Bamba Fall la ñuy cité cité Birakan Ndiaye. ba pare c'est-à-dire li ma bëgg a xam ba tey ci loolu moom mooy. au nom de Ousmane Tanor Dieng lañ ko defee ou au nom du parti socialiste. moo signé plainte bi loolu laa mën a wax. Mhm. n'est-ce pas mais plainte bi dañ ciy bind mu leer naa ñi Bamba Fall et compagnie cité ci Birakan Ndiaye léegi li tax ma ni boo de commande la même boo yi dañoo bind seen tur ak seen numéro téléphone ci plainte bi kon x amu ci dañuy bind assaillant bind tur bind plainte bind kii mbirum boo de commande la ak boo de livraison mais parce que boo déggee ñi ci wax ñi bu ci procureur ñoom daal Ousmane Tanor Dieng moo porté plainte lañ lay wax. kon daa mel ni kooku bu porté plainte am naag amul dañ ko war a yóbbu waaye nag yaakaar naa ne justice yàlla laa gën a gëm justice àdduna te tamit man am naa confiance ci sama justice. ragal naa ne procès dina mus a am te dina musa leer. su fekkee ni maa ngi ñaan bu dee damaa fay nit wala ma jël nit mu kii na taxaw tribunal ni bambaa ma fay nangam moo ma ko jox béréb sàngam wala ci kii la ko jaarale defloo ma lii àdduna du yàgg ba loolu am xanaa ñoom ñu fay nit di ko demal nga wax loolu. Mm-hmm. alors tey génn nga ci kaso bi lan moo des ci sa diggante ak parti socialist lan moo des sa diggante ak Ousmane lan moo des ak ñu bëri ñi nga xam ne ñoom nga bokkal parti bi parce que dégg naa nga ni seet si la dégg naa aussi bi nga génnee am ñu jàpp ne dañ leen war a dàq ci biir parti bi lan moo des tey ci seen diggante yow ak ñoom waa parti socialiste. xam nga parti socialiste. Mhm. man dama caa yàgg def naa ci de trente ans même quatorze ans laa ci dugg. Mhm. du ko nekk mu ci mën a dàq. ma wax du leer dàq naa la taxul ma dàq sama bopp. parti la boo xam ne ñun xamuñu ñaari parti bi ma juddoo léegi xaw ma ñaari parti ah mais du yow rek ak ñeneen aussi ci biir man sama bopp nga ma laaj. waaw ah, d'accord waaw man bi ma juddoo léegi xaw ma ñaari parti mhm. bu fekkee ni nag da nga bëgg a rey sa xaj da nga koy jiñ darage rage comme que ñun seen position bokk ak sunu position il fallait ñu taqal ju lenn pour jaaree fa dàq ñu. waaw position bi ngeen wuutee est-ce que du du dem ci indiscipline de parti ba mu mérité ñu dàq leen mu nekk faute. ah bu keroogee ñu assumé. waaw kaay ma xamal la. ah d'accord bu keroogee ñu. assumé yow yaa ni bokkuñu position. ak parti bi. non lu te bu ñu ko waxee itam loolu mën nañ ko mën nañ ko méngale ak koo xam ni dafa joxul wor ma charte parti bi mérité aussi ñu dàq ko. parti du tarixa demul àllaaxira àdduna la yem. ok bu amul salaire weer bu dee da ngeen di bokk gëm-gëm nga topp ci moo ko leen gëm-gëm nga xam ni bokk leen gëm-gëm man sama ngëm-gëm ak la ñu bokk parce que man ba may bokk ci parti conquête du pouvoir la woon wala bu fekkee nekk nga pouvoir nga téye bi waaye jàpp ma woon ne parti bi may bokk vraiment day jébbalu waat ci beneen parti kooku bis mi moo ko daree def xam naa yoonu parti boobu damay dem directement jébbalu ji. waaw mais monsieur le maire conquête du pouvoir nga wax conquête du pouvoir paasewul ngeen bokk ci coalition muy benn bokk yaakaar président Sall nekk au pouvoir ngeen jàpp ci ba mu nekk au ngeen bëgg defaat leneen. loolu la nit ñi aussi mënul comprendre sa à dire ñii nga xam ne ñoo ñoo bokkul ak yéen yoon ñooñu la ñuy jàpp ne li ñu teg moo tegu ci yoon li ñu wax moo jaadu parce que aussi mënoo nekk ci coalition ngeen ànd campagne ànd def lépp. ànd dem ci législative seen ay député nekk fa ngeen wëlbatikuwaat ne non dootuñu ànd ak ñoom nii la ñuy àndee que loolu itam euh, maanaam ngor sax maye na ko s'il ci loolu. waaw yaakaar naa ni li ma la mën a wax mooy euh, man boo dégloo sama discours aw ma problème ak Macky Sall ma problème ak APR parce que ñoom ils sont dans le rôle hein man merewu ma leen ils sont dans le rôle dañoo gagné pouvoir bi bëgg a téye pouvoir bi nag kon am nañu droit. dañ ko gagné ak yéen. dañ ko gagné ak ñun. waaw waaye ñoom ñoom ñoo jiitu cest à kenn lay gagné. du du du élection législative du liste benn nit a gagné muy Macky Sall mais ni la benn nit moo. mais yéen a ngi gouverner c'est le rendez-vous d'une personne avec son a ngi ni la bi ñu demee mhm. man je respecte Macky Sall xam nga lu tax ma respecté ko gëm na boppam li tax mu gëm boppam bi ñu dajee ci assises nationale yi ak bañ ci bañ nekkee ci Benno Siggil Sénégal ak yëpp. Mhm. Macky Sall bis bi muy rejoindre sunuy coalition. Mhm. bi ñu ne dañoo bëgg candidat unique dafa bañ. te ba tey jii la mu wax la mu jëgam ba léegi. Mhm. ba ñu naan gouvernement bu député yi ëppee nañ nañ jox ab premier mi dafa ni dafa bañ moom moom moom régime présidentiel la gëm te la mu nekkoon ci la gëm ba yàlla jox ko réew mi. Mhm. ba ñuy demee tamit amoon na pacte bu ñu signé woon ni képp koo xam ne jàkkaarloo na ab lay Wade. ci deuxième tour na ko ñëpp jàppale. Mhm. loolu tamit nangu naa ko respecté nañ ko man li ma nangu rek mooy di jàppal nit ba fàtte ni da am parti ba fàtte ni ëllëg boo gëmee sa bopp li Macky def ba jël réew mi ëllëg sa parti war na koo jël mën nañu jàppale Macky Sall. waaye terewul ni parce que li ma gëm mooy Ablaye Wade ànd na ak Abdou Diouf. Mhm. te terewu ko ne candidat ci dara. Macky Sall ànd na ak Ablaye Wade terewu ko ne candidat ci dara donc ñun tamit parti bi ñu doon parti man damaa gëm ni. parti bi jur na doom yoo xam ne ëllëg lu ne mën nañ ko doon ci réew mi mais dama dem ba suux ba mënatoo génn tamit laa doon bañal parti bi man dama gëmoon nii parce que man dugguma ci politique pour daw dépense. dugguma ci politique pour yenn position. damaa jàppoon ni rek. bi Pape Babacar mm-hmm. Mbaye mm-hmm. dañ ko mës a wax nii Pape Babacar lan mooy sa souhait bi gën a foor ci yow mu ne damaa fekke bi ñuy perte pouvoir bi li sama souhait bi gën a mag mooy bés ñu ne un socialiste jëlaat na pouvoir bi. man maag moom ñoo bokkoon lu ñu doon dund. man dund ma solo ci loolu. monsieur le maire. Mm. ndax jàppaloo nii. sa euh, discours bi dafa nekk discours bu caduc maanaam boo xam ni mënoon mën na ñàkk li ko waral mooy. mi ngi doon amee sens. ci ca deuxième tour ba ba nga xamee ni président Sall ñëw na di waxtaan ak yéen waa yéen waa parti socialiste. Mm-hmm. ngeen teg seen veto nit àndu leen ci. est-ce que loolu bu ngeen ko defoon ci lay ëppee sens que ngeen ànd ak moom ànd ci gouvernement ay ministre parti socialiste ñu ngi ci biir Serigne Mbaye Thiam mi ngi ci Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi ci ñeneen am ci ay responsabilité ngeen toog ba léegi ngeen bëgg gis beneen yoon. non c'est-à-dire euh, pap bul ko gisee noonu gisee ko rek ni. non en tout cas même boo ko giseewul noonu ñi neen ñi nga xam ñoo nekk ci beneen côté bi ñoom li ñuy wax mooy mais ñu def lu dul ànd ak ñi. parce que ñoo leen ñoo ko waxoon. bu la yeboo nga gëm gor ca wax ja. bu la yeboo nga Macky Sall Tanor la giseel du parti bi la giseel kër Tanor la dem. mais terewul ni tamit Tanor la mu wax ci sunu tur dañ koy assumer ah, non dégg na Tanor la mu wax ci sunu tur uh-huh. ñun ñoo ko fal ñoo ko def sunu responsable mu jiite sunu parti mm-hmm. kon nañu nangu ni engagé la mu engagé dinañ ko assumer donc deuxième tour boobu mm-hmm. jàppal ni dafa amul xeex bu métti bu fi amoon mm-hmm. président Ablaye Wade la ñu waxoon ni rafetlu wu ñu troisième mandat am parce que constitution bi nanguwu ko mu dëgër looloo indi woon M23 ñu ñëpp taxaw ni ko mandat boobu du ko fi yeggalee moo tax tey bi ñu naan tey ko wax naan waaye justice bi bu ñu xarab justice bi justice bi mais jamono ji koy wax jamono bi ñu invalidé candidature Youssou Ndour jamono jooju nga xam ne ab nañu Ablaye Wade conseil ni mën na mën na am troisième mandat boobu ñu ni boobu mën nañ ko jàll. mais jamono jooju suñu leader yi ñoo ne woon justice bi wàcc na yoon tey bu kenn ni ñi dañoo yóbbu justice parce que ñoom ñoo njëkkoon a xarab justice bi moment ko doon xarab tey ñoo naan justice bi kat na ko ñëpp jox cër na ku ci waxati ndànk justice bi mais donc Macky Sall jàppale bi ñu ko jàppale woon dafa normal woon. Mhm. dañ ko koo yéene woon. Mhm. te ba tey ñàkk ñu ko koo yéene. Mhm. ñu suñu seul problème rek mooy dañoo jàpp ni socialiste war naa yor réew mi mais président Macky Sall il est dans son rôle. fi ñu ni am loo xam ne sax boo koy wax iñaan lay nuru. yàllaa ko fal. parce que kenn fogu ko woon sondage yi kenn gis ko woon ci deux premiers yi kenn mënu woon imaginer mu raw Moustapha Niass raw Ousmane Tanor Dieng raw Idrissa Seck donc nañ ko koy yéene ndax yàllaa ko fal fal googu. donc léegi rek yéene bi ngay wax dëgg la si yow ni nga koy waxee nii. yéene bi man man fëgguma kenn soxlaalu ma kenn dara te kenn du ma xaar ci lenn. <laughs> mais da nga tegul benn acte boo xam ne day wane ni yéene nga ko ci làmmiñ ñi nga koy wax rek mais acte bi nga war a mën a teg pour wane ni yéene nga ko pouvoir bi mooy liggéey ak ñoom Ousmane Tanor Dieng ñi nga xam ne yéen a àndoon jàppale ko mais ngeen ànd continue moom deuxième mandat après lu ngeen bëgg ngeen def ko xam nga moment boobu am na ku am na ñu ñëwoon ci ñun ni ñu fal Ablaye Wade gën ndax même màgget la bu defee benn mandat day dem fekk ngeen pare jël moo gën fal Macky Sall Macky Sall Macky Sall xaleel boobu dellu gannaaw ndax li ñu waxoon Ablaye Wade wala am benn mandat loolu la mais dama ne la dama ne la sama boppam ma la gënal du bañ naa la bëgg nañu Macky Sall lool nit ku baax la vraiment mu ngi góor góorgóorlu ci li muy góorgóorlu waaye tamit suñu bopp ñu gënal bu ñu sañoon kii jiite réew mi doon socialist loolu aayul sama bopp ma la gënal du bañ naa la ayul. d'accord alors laaj bi ma la laaj dégguma ci tontu bi dinañ ñëwaat ci ponk boobu. parce que laaj ko ma tontu la laaj man amul lu may ragal tontu. non mais bien sûr man. laajaat ma laaj ko ma tontu la. lan moo des tey sa diggante ak Ousmane Tanor mi nga jàpp ni moo la porte plainte ba nga dem ci kaso lan moo des sa mooy des mooy wéy di nekk sa secrétaire général wala lan nga koy jàppee tey. Ousmane Tanor Dieng. waaw ba mandaam di jeex mooy sama secrétaire général. ok porté na ma plainte. Mhm. yàlla def na li muy def. nangu naa ko parce que jaam day nangu nattu xëy na yàlla fi la ko doon jaarale parce que rëccuwuma ko lool parce que am na lu bari lu ma xamee ci kaso bi ak lu ma fa jàngee daan naa am problème matale waxtu juróom te kaso dala koy may daan naa am problème yeggale yenn alxuraan yi kaso dala koy may muñ kaso dala koy may nga xam tamit am na ñoo xam ne gënoo leen ndax kaso wàll yoog lu nekk ngi ci ak ñoo xam ne la leen fa yóbbu xëy na bu ñu leen teeloon a bàyyi leen tax na ma xam loo xam ne ëllëg bu ñu jëlee réew mi am na loo xam ne surtout détention yàgg yi mën na bañ amati yaakaar naa ni yàlla dafa jaarale ñu bari ñoo xam ni jaarale fa Serigne Touba mu dem exil résidence surveillée jaarale fa ay Mandela jaarale fa keneen kon ma koy sante yàlla bi ma fa jaaralee may gërëm tamit ñi ma fa yóbbu di leen gërëm bu baax a baax ndaxte jàng naa ci sama àdduna loo xam ne su ma fa demul woon du ko jàng ñi yaakaar ne dañu faa dem pour kase ma dañ maa renforcer ndaxte gën nañ maa renforcer gën nañ maa tax ñi ma xamul woon xam ma ma leen ci gërëm bu baax tey ñaan yàlla bés mu àtte cest à gërëm bi gërëmu dëgg la ba tey wala gërëmu gërëmu maanaam nga baal ma mais ndax gërëmu dëgg la wala gërëmu nga xaw ma nan laa ko bëgguma utiliser benn. mu wax ji li mu gën a gàtt. waaw léeg nga foog ne yaa ngi yàq ndekte yaa ngi defar. d'accord parce que am na coono yu ci am am na métit gu ma am. waaye am na lu ma defaral maa ngi koy sant yàlla. voilà laaj naa la nga ni mooy sa secrétaire général ci affinité lan moo ci des ci yéen ñaar. xam nga nag nit ki bu la dugalee kaso bàmmeel rek la deseel ni ki la yéene kaso bàmmeel kese la la deseel de toute façon maa ngi jàpp sama njàmbur di xaar bés procès am ma gëm ni bu procès amee barki Cheikh Al Khadim mi ma yaakaar dinañ ma seetal ndax du gisuñu ba tey jii parce que man maa ni doyen des juges ci kanam avocat yi est-ce que nit nee na maa ko gaañ mun ma déedéet est-ce que nit dafa ni maa ko fay mu ñëw wala nervi wala kenn ba léegi amul ci dossier avocat yi lii dañ ko amul ci. Mhm. yàlla nañu dem ba procès bi loolu doon dëgg. parce que ñoom yàkkamte ñu ni ñu cof ma ci lu ndaw a ndaw ba ñu profité dàq ma ci parti bi maa ngi dégg ku naan waaw bal ñoom ñoo kii dootu fi amat nag mais xanaa présomption d'innocence dafa amatul ci dëkk bi yaakaar naa ne ni même Khalifa Sall dossier am nit ki bu buñ ko tuumaalee mais may leen ko ñu jugé ko mais ngeen wër télé yeeg rajo yi mel ni yéenay procureur wala boog day feeñal ni tey yeneen ministre de la justice tey yeneen toog table conseil des ministres parce que am na fu ñu jaaroon parti bi bi ñu Ablaye Wade nekkee ci nguur gi am nañu problème yu bari yu ñu daan am ak ay nit daan nañ toll maison de parti ñu dóor lacrymogène mais est-ce que boobu amoon nañu xaritu procureur wala xaritu ministre de la justice boo xam ne moo lay jàppale ci dossier déedéet xëy na tey dañoo bokk ci ñu gouverner réew mi am fa doole di toog table conseil des ministres di toog table coalition des leaders instance leaders yi moo tax ñu am yenn possibilités yi waaye yaakaar naa ne bañ nekkee ci opposition muy ñoom Robert Sagna di Ablaye Matar Diop di Sékou Touré di ñoom ñëpp di mbay jag keneen fu nekk am nañ fa problème mais amuñu woon accès ci ni ñu amee accès ci léegi. d'accord léegi monsieur le maire wax ci affinité maanaam ci nit ak nit ci xol ak xol. tontu nga ma ci lu leer mooy ku la dugal kaso bàmmeel la la dese kon lan moo ci des dama bëgg xam parce que fi ma jëm ak yow mooy ba am na fu ma lu lu ma bëgg si nga leeral leeral non li ci des du ma ko nëbb sama responsable politique la ñun ñoo ko fal moo ñu jiite mhm. maa ngi ci biir parti bi génn guma ci dàq ma ci tamit maa ngi toog en tant que militant waaye terewul ni damay jàpp sama njàmbur duñ ma dégg ci dara ba jugement bi yegg parce que am naa confiance sama justice te jiixi jaaxe yi du ma ci dugg mel ni damay neexal nit wala damay raamal nit yàlla kese moo ko mal moo ko ajoo maa ngi toog jàpp sama njàmbur di déglu sama parti tey xaar justice bi def procès bi parce que procès boobu moom maa ko bëgg sama xol te yàkkamti naa ko d'accord mais monsieur le maire boo eggee ci parti boo xam waxee egg ngeen foofu ba am loo ko jàppal parce que ku la dégg nga wax xam nga ni am na loo ko jàppal ci sa xol est-ce que nekkandoo boobu dina nekkati nekkandoo bu bu bu bu bu mën a jur ay nit yu mën a ànd ba mën a jëm foo xam ni fu am njariñ la. xam nga man politique ma ndax sama bopp PS dama ko jud dama ko bëgg parce que PS dama cee namp te mosuma cee jóg te duma ci jóg. te duma ci jóg dàq naa terewul ma nekk socialiste xëy na mën nga dugg bokk ci leneen jibo ko socialiste la. Moustapha Niasse socialiste la mais tur PS bi rek moo changé man socialiste laay doon. donc mhm. yaakaar naa ni man mhm. socialiste laay doon toujours. Mhm. donc parti bi bu ko neexee nañ ma dàq suba parce que parti bi man joxuma lekk joxuma naan mosumaa jox post man ay mosu kenn mosumaa nommé dara parce que te kenn du ma nommé poste électif laay yor poste électif yooyu maa ko ñafe sama base gagné ko. te amul benn bu ci parti benn bi coalition bu njëkk bi coalition la bu mujj bi coalition la te yaakaar naa ni. bu ma àndeek waa Médina ak waa Ndakaaru ñu bokk ndey ak baay bañ a gis parti gis defar dëkk bi yàlla mën nañ ci mbay ndam sans parti. d'accord dama la dégg. te parti xewatul sax gis nga li xew France. Mhm. parti yu mag yi daan nañu ay mouvement gagné. Mhm. d'accord alors monsieur dama la dégg bi nga génnee kaso nga ni sa préoccupation fi mu nekk nii du sax du du législative yi. Mhm. mais na xalifa Sall génn kaso. loolu nga wax de ah. maa ko wax lu tax loolu. maa ko wax mais dégg naa ci interprétation yu bëree bëri ndaxte sama am sama benn xaytu journaliste mu ñoo ni ma Bamba yow kat li nga wax est-ce que tu n'es de mauvaise foi man ko pour la mu ni ma parce que dafa dégg ci ñi yor réew mi ñu ni bàyyi nañu ba ñu inscrire liste électorale yi ba mu jeex ñu doog lay génne parce que comme que bindu woo woon doo mën a nekk député moo tax li nga mënul nekk député ndax tu n'es pas électeur tu ne serais pas éligible moo tax nga waxee noonu ma ni ko dañoo juum nag bàyyi leen rek parce que man. fi ñu may xaar ni fa laa bindoo bindoo ma foofu feneen laa bindoo moo tax carte électeur bi tamit am na ñoo xam ne kilifa lañ ci dëkk bi fan yëpp ñu ngi koy topp moo tax ma teel a leeral ni commission Médina bi du foofu laa bindi te jot naa sama carte électeur may leeral ñi ko yëg yëpp ne jot naa ci teg te man dinaa bokk ci élection yi wax ne xalifa Sall tamit bindu na mais bindoowul Grand Yoff fa mu bindoo préfecture dina jot carte maak moom yëpp bindu nañu kon ku yaakaar ne li ñu toog ci kaso bi jotuñoo bindu da ngaa juum bindu mu leer naññi li tax ma wax ko nag mooy damaa génn ku nekk ñëw n'est-ce pas même ba nga nekkee ca kaso ba waa élection yi nan la ñuy àndee nan la ñuy lii mais yaakaar naa ne nit kii di nga ko ni ndokk sa bakkan xalifa Sall daf ñoo ji lu ne muy sunu camarade Khalifa Sall ñu ànd ak moom ci ngor bañ ma jàppee moo ci juta àjjuma ju ne mu nga Medina taxaw ñàkk ci dooleem ñàkk ci alalam tey su ma dee gor. yaakaar naan ne waruma xool lu may jëriñ dara non monsieur le maire monsieur le maire man pour man politique bi ngay def da nga ma wax léegi ne ma pour askan bi la c'est-à-dire du problème mu Khalifa Sall du ñi nga xam ni ñoom peut-être am na nu ñu la yaakaaree. pour nga nekk député pour leneen pour ñu mën a pour seen i aajo mën a faju seen i loi mën a voté pour leneen ak leneen mais ñooñu bu ñu la déggee nii amuloo looy wax lu dul Khalifa Sall mais loolu loolu loolu loolu loolu monsieur le maire nit mënu ko comprendre ci nit koo xam ne aspiré na dara lu national. gis nga Pape nga yow yaa ko bëgg gisee noonu. mais li ma ah la bëgg a non déglu ma taxal ma wax la xam naa ni ngay engagé say question loolu yëngal ma li ma la mën wax mooy député terewul ñu dund am na ñu nekkul député ñoo xam ne ñu ngi service seen askan lépp député di ko def. am na ñoo xam ne amuñu ndombo tànk ñu nga bitim réew wala ñu ngi ci réew mi jël seen alal di ko def ci dëkk bi di fexe seen dëkk di fa tabaxi jàkka ak école te du ñu député ku bëgg a liggéeyal sa réew dooni su ma nekkul député du ma ko def sonn naa ci sama gox te moonte du ma député wante jamono ji may doog a génn boo dul député it maire nga. waaw maire la mais jamono ji may doog a génn je voyais mal di wax waxi député te bàyyi sama mag fële ci kaso bi tey sama priorité du élection législative yi mooy sama mag na génn ba kon loolu loolu nga gëm ba tey. moom bët fi ma lay wax ak nii. d'accord parce que mi ma yaakaar Khalifa Sall génn moo ma gënal doon député. alors monsieur le maire Khalifa Sall ci détournement lañ ko tëjee. dafa dafa falsifier ay këyit. def ci di faux ñu tëj ko ci détournement bu ci jëlee condamnation. xam nga ni waxuma la mu nekk député mais amatul lu mu mën a nekk. donc danga nga bëgg a jàpp ni kon yow muy sa yaakaar muy yaakaaram lépp bu ñu eggee ci condamnation boobu parce que li daal Karim mën na ko dal. ñoo bokk lu leen tuumaal muy détournement alors ndax jàpp nga ni kooku war nga ci mën a wékk sa yaakaar nga jàpp ni danga naan non na génn pour mu mën a loolu loolu xalaat nga ëllëg mu jël condamnation lan mooy doon kon seen avenir. man dama jàpp ni mbir mi bu jaaree ci yoon xalifa Sall dina génn bala muy yàgg ndaxte man je suis bien placé pour certifier que xalifa Sall deful détournement accusation mën naa am wante accusation nit bu ñu la accusé présumé innocent nga tant que jugé wuñ la ba condamné la parce que dama gis tey ñu bari ñëw ci sa plateau bi génn ay këyit naan budget mairie Dakar sow dafa wax lu ko neex parce que cent millions mooy secours yi am na fu mu ko génnee dañoo juum dama leen di wax tey information. léegi mën nga ma baal bala ngay ñëw ci sa développement boobu. Mhm. est-ce que détournement passé na 15 millions par 15 jours yu ñuy jël xobet teg ko ci sa loxo te kenn xamul foo koy def. danga naan détournement dama ni ndax détournement passé na foofu. danga naan yow xamuloo fi mu koy def. wante man xam naa fa. non man non non non boo xam ne yow. xamuloo monsieur le maire monsieur le maire. Ah, ah. bi ko bi ko bi ko laajkat bi di attekat bi. bi ko justice laajee waxu leen fam koy def. waxu leen dara lu leer ca fam koy def. am na ci droit mais dema ni la. am na ci droit moom la moom moo wax tonton noonu wante man de laa ni la am na lu ma ci xam ndaxte man maire social ak santé ville de Dakar adjoint au maire la à la ville Khalifa Sall. xam nga nag li bon mooy lay lépp man duma lay lépp ils ont très mal justifié dañoo fekk benn façon bu ñu daan justifier fonds yi bu ñu ñëwee rek bàkkale ko dugal dugal. ah non man li nga wax sax yanu na maanaam. man du ah, ma fenn ma man sama borom laa ragal. d' mais kon d' accord nga ni loolu moom kaso xaj na si. waaw ma rek la ah, dama la. kon boo ma dégloo. ah ok ma expliqué la yaa ko wax de. dama déglu ma rek ma expliqué la loolu nit mënu koo dindi. d' accord mooy foo bi foo bi nit mënu ko dindi. dama ne la yow ah. waxal sa wax bàyyi ma ma yeggale sama wax. ok Khalifa Sall. Mhm. li ko dal mooy dafa fekk noo xam ni moom lañ daan justifier fonds yooyu. Mhm. mu jàpp ni mën na cee continuer di ko justifier. te ndekete baaxul. Mhm. moom expliqué na ma parce que man avant ñu koy tëj bi ma seetee ma ne ko mais maire li ñu wax mu ni ma Bamba man daf ma jëlee kaw parce que dama fogoon ni rek. parce que ñii nga xam ne ñooy nekk ci daaf bi ñoo ci nekk Mamadou Diop ba ci Pape Diop ba ci léegi te comme que mosuñu ci am problème moo tax ma gëmoon yoon woowu baax na ndeke baaxul. Ah. ni ma toog naa ñetti weer bi may doog a falu. déglu ma non damay man du ma wax lu dul ah, dëgg. baaxul baaxul waaw déglu ma du ma wax lu sama ah. bàmmeel laa tiim. mu ni ma toog naa ñetti weer yoo xam ni tiim naa xaalis bi néeguma ko laal damaa dem ba ci Mamadou Diop laaj ko mun ma waaw ñii da la daan doxee nee na ma dem ba ci Serigne Mansour borom daara ji ni ko waaw ndimbal li mun ma ah waaw loolu daan naa ko dégg dimbali ci ñun ñi waaye fexeel ba bu mu soog sa xaalis mu ni ma billaahi wallaahi bamba musul jaxasoog sama xaalis ni ma nag li ñu comprendrewul mooy dañu naan xaalis bi dañoo foog ne dañuy jël 15 millions wala 30 millions yi Khalifa Sall lo xaalis baa ngoog mun ma bamba man du ma laal xaalis man du sax doxantoo xaalis l'argent est mis à ma disposition ci registre bi la nekk ku ma ci war a dimbali nii la parce que lu ci bari ay dëjëk ngénte ak yu ma tuddee daanu ma fekk Sénégal monsieur le maire nga baal li ma dégg mooy daaf bi mooy dem ca perception. ñu jox ko xaalis bi xobet. mu yóbbul xalifa xobet. non loolu amul. voilà loolu dama ne la wuyu ma. waaw waaw man. mooy waa Ndakaaru laay jël seede. Uh-huh. waa Ndakaaru laay jël seede. ok parce que xalifa li muy toog Sénégal bariwul. Uh-huh. dëj bu amee yóbbu lañ fa enveloppe xalifa lu luñ tuddee xalifa. muy jàng muy leneen yóbbu lañ ko fa muy gàmmu di màggal di ziar. yóbbu lañ ko fa te du fa fekk budget bi loolu ngi ci budget bi ndimbal yi nga xam ne dafa jëm ci askan wi néew doole yi indigent yi mi ngi ci budget bi loolu boo ma ci laajee te may loolu mi ngi ci budget bi waaw dama ne la moo tax loolu nag moom mais nag bëgguma aussi nga jaxase mm, xaalisu budget ak xaalisu caisse d'avance moo tax ma ne la boo ci bëggee lu la leer dag may may ma wax la ci lu la leer naññi maa lay déglu 600 millions la ñu am ci sunu budget at yi passé bu dul at bi ñu def 850 millions 600 millions moo ci nekkoon 600 millions yooyu maay président commission sociale bi bi Khalifa ñëwee dafa ne nañu yemale secours yi parce que jaadul ngay may kii 400000 di may kii 50000 kii 20000 nañ ko plafonné à 40000 li may wax perception may dégg secours catholique yi bu jotee PAK bi bu ñu defee 5000 secours à 40000 day nekk 200 millions bu Tabaski jotee. bu ñu defee 10 000 secours à 40 000 day nekk 400 millions 600 millions yu jeex tam xarit ñëwagul korité ñëwagul leneen ñëwagul leneen lu ci amaat ci li ñu di soxla ci leneen dañ naan ko demal nga demandé ko xalifa ndax suñu budget ci commission bi jeex na bu dee problème mu santé bi dañ ko plafonné à deux cent cinquante mille képp ku faju loobu deux cent cinquante mille ci kees googu lañ la fajee tey dama la indil convention yi ñu signé ak hôpitaux yëpp ndax nit ki du jot xaalis bi dañ lay defal bon après hôpital bi lañ koy versé hôpitalu Ndakaaru yëpp a ngi nii te boo demee ba article 3 bi dafa ni la la ville de Dakar s'engage à prendre en charge les prestations des enfants des indigents ou nécessiteux ce montant de ces prestations ne doit en aucun cas dépasser le montant de 250 000 par enfant bi pour Albert Royer la nécessiteux ou indigent par la ville de Dakar kon amul benn boo xam ni à part CTO moo dem ba 500 000 kon képp ku ñu war a yóbbu bitim réew te am na magum Dakar yu bari ak ñu ma bokkal parti ak ñu ma bokkal parti ñu ci baree bari bi ñu amee intervention mopp loolu indi ko ci commission bi dañu ne ko commission bi du passé deux cent cinquante mille bi la def les prises en charge deux cent cinquante mille da dem ci xalifa mu mottali la dëkk yu bëree baree bari yu ci bari ñun ñoo ko ci demal ñu jox enveloppe cinq cent mille un million dëkk nag mënoo cee dem ni ko jox ma reçu d'accord jàng yu bëree bëri yu ñu ko représenté mënoo laaj reçu d'accord soirée yu bëree bëri muy grand théâtre ak feneen la mu fa joxe mënoo laaj reçu parce que bu ñu laajee reçu dañ fay dajeeg délégation état te dañuy joxe te ñoom kenn du leen jox reçu mais mais d'accord naa ni d'accord naa ni doo jot doo doo doo laaj reçu mais au moins di nga jot demande dina am ku la demandé est-ce que dama lay laaj sama baay bu dee woon yow boo may jaale dama lay demande non waxuma baay daf laa war booy jaale si nit ku dee di am lu mu tekki ci ndakaaru la nga fay joxe dalaa war parce que du sa xaalis xaalisu ndakaaru la. kilifa sa imaamu koñ bi dina dee wala notable bu mag dee ngay xaar demande ki dee laaju la ko waxuloon indil ma nangam da ngaa def sa délégation ni ko ci turu ndakaar ak turu xalifa Sall enveloppe bi Ndakaaroo la ko jaale da fay toog naa ko jox ma quittance moo tax Khalifa Sall ni ma Bamba naa bu dee dañoo bëgg ma toroxal ay famille yoo xam ne ñi faj naa seen baay ba mu génn àdduna dajal leen ñu bëgg tey ma tudd seen tur weer leen du ma ko def sëriñ yi ma daan jox àddiya ñu may ñaanal lu ñu xew ma dem ci du tey laay tudd seen tur naan sëriñ sàngam ba mu xewle jox naa ko nàngam sëriñ sàngam ba mu feebaree ba ñu koy évacuer nàngam laa ci def mun ma kilifa yi ne ci ndakaaru tey am na ñoo xam ne ay kilifa politique la ñu ngi sama parti ak beneen parti ma ne ko ñooñu nag ñoo jëra tudd seen que ñooñu man am nañu ma ci xam ci ñu ñu bokk ci parti saw suñu parti ak ñu bokk ci mouvance présidentielle bi. ñu ci bëree bari parce que ñu ci baree bari yàgg nañ ma yónni ci ñoom ah. ñu ci bëree yàgg nañ ma yóbbante ngërëm ci xalifa. déet waay barki borom Touba laa waat. te kat maa ngi xaar ba ci mouvance présidentielle bi. billaahi wallaahi ak sama bakkani doom laa waat. te maa ngi xaar rek kenn ci ñoom ba mu jëlati parole wax parce que ba ma nekkoon kaso mënu maa wax mais ñu ci bëri ma lañ daan yónni ci ñoom. ñu ci bëree baree bari am nañu problème fekk ko fa. mu fajal leen ko te ñaar ak ñett yëgu ko. Ah. moo tax keroog mun ma les sénégalais. di am na ci ñoo xam ne ils n'ont pas la reconnaissance loolu waroo ci nëbb dara. parce que lu tax waroo ci nëbb dara dañ dafa nekk xaalisu askan bi jëm ci askan wi ba moom mu dem ci kaso. bu fekkente ni dëgg la te li ngay wax mu nekk. danga naan diw ak diw nangam nangam nangam loolu mu laaj. damaa jotagul ndigalu ko parce que nee na ma nee ñaan naa ko ndigal li nee na ma bàyyil dinaa seet mais man keroog dañoo toog di seetaan télé ma ni ko man je comprends pas diw mooy wax lii mun ma lii mooy Sénégal ni ma kaso nag dalay jàngal boo nekkee ci naqar ci ngay xam say xarit xam nga lu ñu lay tontu xalifa na kenn yéenewu ko ko waaye que nag il faut que justice fait que la justice fasse son travail mais tey laa ni la leaderu parti ñu ngi may dégg am na ci ñoo xam ne ba ñu jàqee ak la ñu campagne ak lii ñëw na ñu ñaan dimbal ñu dimbali leen am na ñoo xam ne ba ñu feebaree tey dimbali nañ leen ci mouvance présidentielle bi am na ci ñoo xam ne seen soxla faj nañ ko ci am na ci ñoo xam ne ba amee journal am ci problème lu ñu fayee dimbali nañ leen ci ñu fay ci ay sénégalais ci seen journal bu ñu ma tax wax bu ñu foogee ñu tëj ma kaso mooy tëj sama làmmiñ dañuy nax seen bopp yàlla rek laa ragal. d'accord léegi monsieur le maire loolu fond bi la leer na forme bi nga d'accordul nga jàpp ni moo baaxul. erreur la faute de gestion la faute de gestion la mais faute de gestion yaakaar naa ni bu ci détournement amul kaso mën na ci bañ a am parce que dafa ñaaw par exemple tey non non non bul il faut nga wax dëgg boo fekkee da ngay wax rek da wax lépp mu yenu maanaa c'est-à-dire bu fekkente ni jàpp nga ni faute de gestion la détournement am na ci mais bul ni kaso mën na ci. détournement amu ci xam nga détournement. non détournement Khalifa Sall ku ko xam jege ko da lenn xalifa ne Khalifa Sall xaalisu mairie Dakar soxlawu ci dara xalifa Sall mu ngi fépp ci àdduna bu soxla woon xaalis du xaalis bii la soxla. Khalifa Sall def ni ma Bamba sama xarit yëpp a may woon ni ma kaay ma jox la nga cautionné ni ma Bamba bis bu ma cautionné damay xaru parce que day mel ni maa ko jël avala ni ma parce que Bamba leer na ma ni man jëluma ci dara parce que xaalis bi dañoo ne mis à la disposition du maire bokkul ak dañoo jox maire xaalis bi maire kan moo ko jox xaalis Khalifa Sall daa soxla 15 ak 30 millions Khalifa Sall moo jiite maire Afrique yëpp. mu ngi mu ngi Ségilia mu ngi fule tey bu soxla woon xaalis bari lépp loolu am ko te boo naan 1 milliard 800 da ngay foog ne ci benn tibb la ko tibb. 30 mhm. la dégg naa bi nga jëlee Mimi xaalis bi trois cent 360 millions par an la Khalifa Sall atum lëmm daf cee soxla 360 millions ak fonction yi mu occupé yëpp. noonu tey nee na leen xool leen la ma amoon bi may jël mairie bi ak samay compte ak samay bien ndax dara yokku na ci. gis nga Khalifa Sall mosuma lekk sama làmmiñ ci kaw mosuma lekk ñaar dërëmam. ok jëndalu ma kër mayu ma oto du ma géwalam. man du ma wax lu ma gëmul. parce que man ci ngëm-ngëm lay ànd ak nit. gis nga bu ma leeroon ni moo ko def fii laa ko naan ñukk ni yekk bu naqari ànd ak keneen. parce que man ci ngëm-ngëm laay dem te yaakaaruma kenn ku dul yàlla ndax lekkuma dërëmu kenn fëgguma bureau kenn. d'accord mais xam nga ni ni mu ko defee baaxul te teguwul ci yoon. dama ni la man dama ànd parce que nii liste baaxul. waaw ni ah. baaxul. loolu day ko yóbbu kaso nga wax rek ko yóbbu kaso leneen yóbbu ko kaso donc loolu moom dafay setal ñi nga xam ni ñoo nekk ci pouvoir bi te ñu leen di jiiñ naan ñoom ñoo tëj seen adversaire politique. non dama ni la. voilà dama ni la. Mhm. bu fekkoon ni. xalifa yàgg nañ koo audité bu doon 2009 ñi fa jaar ñëpp dañoo ne ko lii baaxul doon na ko ba bala ñuy si fii wante chaque année nañ ko audité deux ba trois fois nekk ba léegi nag léegi ba élection yi jege ñu soog ko ci jàpp loo xam ni mais li fi jaar yëpp noonu lañ ko justifié bu dee dañ ko ci woo war nañu woo kon ñi ko tàmbali ba tey. Eh, déedéet kenn war leen woo. Pape déglu ma non Bamba. bu doon xalifa Sall kese ko def. ñu xamul xamul dara ci droit xam nañu ne am na nangami at yoo xam ni bu ko dossier rombé kenn la woo ci dara. loolu yow xam nga ko xam nga ni kenn mënut cee woo Mamadou Diop kenn mënut cee woo Pape Diop. mais à titre de à titre de témoin. voilà à de témoin xam nga par exemple ah. maa ngi am yaakaar suba. Mhm. la beneen procès bi nga xam ni moom mooy requête en annulation dossier bi. Mhm. ndaxte ñun dañoo jàpp ne dossier bi. Mhm. ni ñu ko piloté jaarul yoon. d' les avocats maître Ciré Clédor lool la ñu expliqué. nee nañu dañoo def requête en annulation pour ñu annuler rapport IGE bi annuler PV de annuler réquisition introduction bu procureur bi annuler PV de comparution bi bi nga xam ne moom la ñu leen décerner mandat de dépôt ndax lan dañoo jàpp ni IGE du structure bi nga xam ne moom moo waroo a auditer locale yi Cour des comptes la war parce que IGE loolu du compétence am benn ñaareel bi ñu fàttali leen ni article 102 bu constitution bi moo def collectivités locales yi muy muy commune muy ay des instances de plein des mais de plein exercice. Mm-hmm. kon ñoo yilif seen bopp du affaire état beneen bi tamit libre administration moo fa nekk kon tey bu ñu gisee agent judiciaire de l' état ñëw tey day représenter état bi état bi amul dara ci mairie Ndakaaru état bi. même bu amee ay fonds de concours yi muy joxe Khalifa Sall ci gën a ndaw ci ville yi Khalifa fonds de concours yooyu Guédiawaye ko ci ëppale Pikine ko ci ëppale Rufisque sax ko ci ëppale d'accord 120 millions la ci yéen wala 160 millions te yaakaar naa ni kon du xaalis boobu la état war a taxaw naan xaalis état bul ko xeeb bul ko xeeb bul ko xeeb même bu dee un franc état bi ko xeeb waaw dama ni la dañ ko war a topp pour xam fan la dugg waaw dama la xaalis boobu dafa am fu mu jëm ci mairie bi parce que dafa am rubrique yoo xam ni fa la fonds de concours dugg mais xaalis bi nga xam ne mooy caisse d'avance bi xaalisu ndakaaru la bu doon conseil municipal moo constitué wu wala Dakar constitué wu à mais état bi la ñu ni état bi waru cee constitué wu ndax état bi dërëm boobu du dërëmam te mënoo laaj loo moomul. d' accord dërëm boobu du dërëmam. loolu dara leeru la ci agent xaalis non xaaral rek xaaral dërëm boobu du dërëmam loolu loolu dara leeru la ci. li ma bëgg ñu ñu taxaw ci aussi. papa nga est ce que am am nga est ce que am nga ay est ce que jàpp nga ni Khalifa am na chance ci annulation yii yëpp. papa Ngagne c'est-à-dire boo na ma dara leeru la ci waxuma la ni man maa ko wax. Mhm. dama ne la avocat Khalifa Sall yi lii la ñu teg ci sunu loxo man duma juriste biñ leen laajee fi dossier bi toll maître Clédor lii la teg ci sunu loxo. Mhm. ñuy ñaan yàlla mu antu. d' accord alors ay man ndax njortal nga ko ci commentaire. <coughs> mais monsieur bu ma ciy def ci dossier bi. d' accord est ce que njortal nga ko ci ay chance yow yow. Ah, bu dee bu dee. dëgg rek moo tax ñuy wax am naa ci yaakaar. d'accord yaakaar warul tas ndax man dama jàpp ni bu weesoo bu weesoo lii Khalifa Sall am na lu mu tekki ci Sénégal am lu mu tekki ci bitim réew. ndaxte bul xool ndax adversaire la xool ni doomu Sénégal la am na bët bu ñu koy xoolee bitim réew ne serait-ce pour ça ñu war koo wormaal. parce que loolu yëpp moom wax dëgg yàlla bala ñu koy wormaal nañu wax aussi ci lii mu leer. c'est-à-dire xam nga bu doon ni rek bu doon ni nit ku taxaw ñu ne voilà doomu Sénégal la nang lu la neex nga def loolu kon mu yomb. monsieur le maire mais dama la Pape Ngagne mhm. lii li koy leeral. Mhm. du tëj kaso moo koy leeral procès moo koy leeral. ñu la am na garantie yëpp bàyyi ko liberté provisoire mu yëggale liggéeyam ba procès bi ñëw ba keroog ñu koy ndax ndaxte kat avant dossier bi am na dossier yu ko fi jiitu ci réew mi de ñu ba léegi loo dégg président neen du protéger kenn mais président yóbbagul kenn ci procureur ñoom slogan boobu rek la ñuy président du protéger kenn mais ba tey gisuma dossier OFNAC yooyu ak dossier IGE yooyu ak dossier CREI yooyu procureur woo ci keneen te ñoo jiitu dossier bi dossier boo xam ni parce que xalifa li ma njëkk wax ni ma boo demee. dem naa dem naa ci sëñ Abdul Aziz si. jox ko nuyoo xalifa mu gërëm ko ci ñaanal bi ñaanal ko aussi ci xalifaam bi jaale ko aussi magam. parce que yaakaar na bis bi gën a métteem ci kasoom mooy bi ñu ko yëgalee ne xalif bi làqu na. métti na ko loolu dafa woor ñetti fan ndax moom xam nga woor woorkat la woor la fa nekkee alxuraan ak sport lay dundee foofu donc beneen bi. demal naa ko tamit ci xalif général des Mourides mun ko mu ngi koy sant ci ñaan yi mu ngi koy. kon yow amul benn demaloo fa benn yoon sa bopp yëpp xalifa nga demal. non man gërëm naa leen ci ñaan yi ma ñaanal maa ngi doon jot seen i ñaan mais xalifa ci boppam yóbbante na ma parce que yónnee nañ ko ay ndaw ak i ñaan vraiment ma rafetlu loolu trop sax léegi nag li ci des mooy man yaakaar naa ne xalifa munul daw génnul réew mi nañu continuer seen enquête te may ko liberté provisoire mu yor ndakaaru yor responsabilité yi. ba keroog ñu koy condamné. nekkam ci kaso bi lan la yàq ci ville de Dakar lan la fa yàq ci ci ci ci doxaliinu ville Dakar mairie ba. dakaar a ngi dox mais taaralul ndakaaru capitalu Sénégal ñu ngi doog a tëj maire fii nag gis nañ fi lu ne dossier liir naa si livre bi gis naa ci dossier yu bari yoo posé gis naa ci ay Africa énergie du n'importe quoi. Mhm. donc dossier yi ko fi jiitu bari woon na lool lool. dossier Petro-Tim yëpp a ngi ci biir mais tey wooguñu kenn pourquoi dossier xalifa dafa ni ma boo demee waxal ma xalif général des tijaan ni ko teggiwuma ndigalam dafa waxtaan ak man ni ma bàyyil noonu fii ak altine ñu wut pexe mais nee na ba ma ko naan waaw njortul woon ni ci ab weekend dinañ ko ci wër fu ne ci Ndakaar ak pour yokk convocation. nee na bañ ko ko joxee ci samedi bi mu xam ne dañuy xëy lundi yóbbu ko nee na ci lundi kon naawoo informé waa Ndakaaru waaye nee na du mus teggi waxi kilifaam. mu ne mu ngi jéggalu ci sëriñ bi ndax tu ko wax mu koy teggi d'accord alors monsieur le maire jàppaloo ni lii yëpp nag Khalifa Sall ñàkk courage politique moo ko ko yóbbee ndax dégg naa la ba tàyyi nga ñaax ko ci mu génn samp boppam dégg naa ñeneen itam ñu ñaax ko mais mu dëgër est-ce que bu taxawoon bu yàgg ci ni ngeen ko bëggee woon dinañ egsi fii ñu egsi tey ak moom. man loolu laa gëm man loolu laa gëm. Mhm. su ma nekkoon place am ber naa sama yoon yàgg na taxawal naa sama taxawal wante moom. tamit ak la mu gëm moom doomu Senghor la loolu la gëm yàlla nattu ñëw na nañ ko assumer waaye yàlla na ko ci yàlla gaaw génne du nit ku mérité kaso ndax ku yàgg liggéeyal Sénégal la. waaw monsieur le maire ñëpp waxoon nañu ne Bamba Fall du fi duggee kaso bu duggee kaso Medina tàkk ñu ne xalifa Sall du fi mës a dugg kaso bu duggee Ndakaaru tàkk. mu ngi ci kaso bi génn nga moom ma nga fa des ba tey dara yëngatuwul. mais lan nga bëgg mu yëngatu pourquoi. Dakar di ah, tàkk non mais dafa warul tàkk loolu moo nekkoon seen argument nag aussi loolu moo nekkoon seen argument c'est-à-dire doo dem tey ba loolu amul nga bëgg ci génn mais loolu ngeen mës a wax. waaw mais kan moo ko wax. Ah, mais mais non maa njëkk a dugg kaso man jotuma wax di man bañ ma convoqué ni ma confrontation lañ ma tëj ba léegi gisaatoo ma man déggoo ma ci mais Ndakaaru daa warul tàkk dëkk bi daa warul tàkk ànduma ci di ko yàq warul tàkk nañu wóolu suñu justice am ci moom yaakaar mu am séparation de pouvoir te am na juge yu yu ne ci réew mi am na juge yu intègre yu ne ci réew mi. li ñu war a ñaan ma wax bon de commande ak bon de ma wax respect ci suñu justice. waaw déet taxal la. dafa am ñaari mënoo ma wax bon de commande bon de livraison ba pare bëgg ma wax respect c'est-à-dire moo yooyu rek dafa dafa dafa irrespectueux ci justice xam nga Pape sa style émission la dama la koy nangul <laughs> mais foog nga nangul li ma la tontu waaw man j'assume ce que ci dama ni la réew mi li may ñaan mooy procureur de la république dem ba bañ a bañ a dépendre ci ministre de la justice bi bokk ci parti politique. Mm-hmm. parti boo xam ni da ngay xeex ak moom parti boo xam da ngay xëccoog moom te ministre de la justice nekk membre bureau politique parti boobu yi procureur di ko jox ay ordre mm-hmm. damay ñaan bés parquet bi bañ a dépendre ci ministre de la justice foofu laay waxee. procureur nag procureur la mais juge yi àtte ñu inte man juge yi àtte ñu ma may liberté provisoire. Mm-hmm. te dama ñaawlu ñetti juge yu toog. waxtaane liberté provisoire ba xool dossier bi ba may la ko benn procureur boo xam ni ministre bi kese moom la fa toogal ni bañ naa ko la procureur yi liggéeyoon yëpp ndax saay loolu laa bëgg ñu renforcer ko ci suñu réew ba procureur bi mhm. bañ a dépendre ci exécutif bi ndax exécutif bi kat bu dee justice wax na mhm. bu dee justice wax na exécutif bi am procureur bi bañ la justice bi wax procureur bi état bi la mu wax mooy mu jaam loolu laa ñaan mu tàggali ko tey ñaanal détenu yi fële longue détention yi pap def leen ci émission ña nekk rëbës am na ci ñu bari ñoo xam ne yàgg nañu fa jugé wu ñu leen. gis naa fa ñun fa tëj ñaar ba juróomi at bañ leen jugé dañ leen àq leen defu leen dara fekk ñaan leen nañ ñaan nañ fa baat seen sëy tas na moo tax may ñaan ñi fa seen jëkkër nekk bu ñu gaaw di ñaan baat. ndax naqar weesul nga toog gisoog sa njaboot kon fekk ko fa di fa ñaan baat na ko jigéen ñi bàyyi parce que fekk na ma fa. ay jooy lañu ñaareel bi tamit. nga yàq liggéeyu nit ay ati at nga tëj ko fa xëy akite ko. vraiment amatul liggéey amatul ci fu mu jàpp. état bi na xool loolu. d'accord te ñu wut juge des libertés. le maire dama dégg yéen ñëpp ngeen di regretter Abdoulaye Wade. dégg naa ko ci xalifa dégg naa ko ci yow dégg naa ko ci euh, Barthélemy daanaka loolu dafay nuru benn wax waxeet itam am ah. parce que bu ngeen demee ba ni du Wade ñëwaat di ko regretter lan moo fi xew ba tax yéen ñëpp ngeen di rëccu Abdoulaye Wade. ma dégg ko ci xalifa Sall mu wax ko. xam nga ma dégg ko aussi yow nga wax ko. xal Sall dina tontul boppam li man mën naa tontul sama Abdoulaye Wade man yaakaar naa ne sonal ñi ko sonaloon ñun jeunes socialistes yi amul fu ne yuuxoo nañ ko ko Karim Wade noonu mais Abdoulaye Wade liñ ko fi jiñ franc-maçon yëpp mosuñoo yóbbu kaso mais fii laa gis dañuy ñëw complot la dugal la kaso soo ko wër télévision yi di wut lu na taqal te loo xam ni waroo ci wax parce que dossier bi. mu ngi pendant à la justice nga tourné di wax lu la neex naan diw ko fa yóbbu xamoon nañ dinañ ko yar mais kooku respecté réew di ko def te yaakaaroon nañu ni bu ñu fi jëlee Ablaye Wade fal Macky sàll tànki gannaaw duñ ko am tànki kanam la ñuy am. mais yow li ngay li loolu rek a tax ngeen rëcc ko mooy li mooy mooy li tax ñu yóbbu leen kaso rek la. loolu nga xam ni c'est personnel. benn li tax ñu yóbbu ñu kaso ñaareel bi. fogoon nañu mais du ci gestion du ci leneen. ci bu ñu leen yóbbu rek waaw fogoon nañu ni. waaw réew mi dinañ yemale ñëpp bu ñuy defee tooxi doone di nga yóbbu waaye bul set sa adversaire nga njëkk koo yóbbu foog na ñëpp yem ci seen kanam wante nag justice sélective bu amee dossier yi jiitu créé bi ñeemale ko ci Karim Wade dossier OFNAC yi ñu dàq na fi Ngom Keïta dossier yeneen yi ñu bàyyi ko fi man ñu ni ñu jiiñ ñu te du dëgg ñu dañoo. Euh, sànni ndox ak suuf te ñu convoqué ci réew ñu ñibbi ma gis la lendemain ci télé bi ne ci kaso bi gis xeexu waa APR ba ñu jël brique di ko dóor nit dere di tuuru. kenn porté wul plainte mais procureur pour lan day autosaisir boppam. Ah, mais dara réew mi dama ni la a porté plainte dama ni la procureur du xaar ko porté plainte le procureur s'autosaisi yooyu bu amee ci dëkk bi il s'autosaisi du xaar ko porté plainte yoon may na ko bu gisee lu jaaduwul mu autosaisir boppam wut ci enquête ñoom def ñaawteef mu yemale leen ñëpp mais man dama am dama nekk maire dañ maa jiñ mais loolu toroxal sa réew la. ku dégg ni benn maire ñu ngi koy jiñ ay agression ndox ak suuf man damaa ndoxul suufu ma man damaa xeexlu xeexluwuma mais yaakaar naa ni jiñ nañu nit xam def naa defagul mais bàyyil ba mu leer ni def na nga tëj ko ci kaso bi mais di ko dugal central cinq jours tëj ko cent et jours ci loo xam ni nee nga da ngay information kese seet ndax moo def mais bàyyil ba xam ni moo def nga tëj ko ndax du génn réew mi am na fu mu dëkk am na mu ngi liggéey te du daw mais man tey li may ñaan mooy bala ñuy yóbbooti kenn mandat de dépôt kaso bi fees na nañu wàññi mandat de yi képp ku am garantie ñu jiiñ la te xamaguñu ndax yaa def maa ngi ñaan justice mu dem enquête la def la contrôle judiciaire ba xam ne yaa def mu tëj la mais ñi ñu tëj te gu guñ leen te leer na ma ne ëllëg nañ leen wax defuñu dara bay nañ ci kaso bi seen sëye ngi tas seen liggéey ngi yàqu seen njaboot ngi tasaaroo. d'accord loolu maa ko ñaan président. au delà de de de de Abdoulaye dama la dégg aussi nga nga tàccu Karim Wade naw ko ci jomam naw ko ci courage am. ci cellule bi nga xam ni foofu nga ko uutu cest à loolu loolu itam lan lay lan lay joxe maanaam Karim ku am jom la ku am fulla la ku am fayda la cest à loolu nga xam ni yaa ngi koy yaa ngi koy jëmale ci ci ci ci ci ci famille Wade loolu aussi lan lay lan la mën a tekki. boo ko jëlee fu sore gis na su ma bëggee wax dara kenn sexaluma suuka dama koy wax Karim Wade dama ñëw ci kaso bi détenu yi ci boppam li may wax ñoom ñu ngi may dégg ku ñëw gërëm Karim Wade. ni ma Karim nit ku baax la woon ñun moo ñu jëlal avocat moo ñu daan dimbali ci lii suñu famille yi ci biti daan nañ ci dimbali suñu jàngu école bi mu fi demee la am problème sàngam garde yi di ko gërëm ñëpp wax comportement am ni ma daan na fi feebar ba sonn waaye kenn daan ko yëg danaan bàyyi leen noonu yàlla baax na donc bi ñu ma waxee loolu dalay yokku jom danga naan même ma dara dalee Karim waruma ëpp jom man mi nga xam ni vraiment nii la demee. moo tax bi ma déggee sa feebar mu jaaxal ma non dama la feebar bi ko déggee mu feebar bi yàgg naa koo feebar bis boobu daa ëpp doole moo tax ñu yóbbu foofu du da ngay sibur rek ñu yóbbu la de parce que am nañ fa seen médecin ci biir bu leen ëppee doole am nañ fa seen infirmerie tant que ñu ma ñu ngi lay mën a faj doo génn bu leen ëppee doole lañ lay yóbbu te maa ngi ciy gërëm jour boobu vraiment maa ngi ci gërëm seen intervention ak yooyu mais bis boobu su ma mënoon bañ a dem du ma dem Karim Wade li ma ko gërëmee lenn kese la joxuma lenn li ma jox du ay millions matul sax 500000. Mhm. mais venant de Karim Wade moo tooy sama xol. matul 500000 mooy. non dama ñi ko naan dama dégg naan Karim Wade daf la jox léeg lii dama ni la. matul 500000 mooy am na lu mu la jox kon. non nag mën naa ko wax. waaw parce que ku gërëmul yàlla doo gërëm nit. ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. d'accord Karim Wade dama musul woon xalaat ni bés dina ñëw bay intéressé wu sama njaboot wala sama soor. am na ñu ma jox lu ko bu foofu jox ko sama njaboot mais venant de Karim Wade moo ma touché ñëw seet sama waa kër li ma jox matul dépense juróomi fan sama kër mais venant de Karim Wade ça m'a touché et maa ngi ko ci gërëm di ko ci sant ndax lebaluma ko ko bu ma fayoon li ma ko lebal du doxee noonu. Mm-hmm. am na ñu ma bokkal parti séq ak ñoom teraanga bu ne man yàgg sonn seen mbir mu ne jaar ñu sax samay kër te ñoo tudd samay doom jaar ñu fa sax ne na ngeen def jéemuñu sax ñëw seet nan laa def. yëg nañu feebar naa seetuñu sama jabar seetuñu samay doom kaso bi tey tax na ma xam ni xarit ak mbokk ak wóllare ak àndandoo ci moment yi difficile nga koy xam mais ci bànneex ñëpp ngay gis. d'accord kon ci parti socialiste set si wuñu la toppatoo wuñ sa njaboot. bu weesoo Abdoulaye Elimane Kane ma koy ñaanal yàlla gisuma kenn ci ñoom faale ma. toppatoo wuñ ma yéene ma kaso di ma gën a dugal ci plateau yi di wax wax ju ñaaw yàlla mi am atte yàlla nañu yàlla atte ci àdduna ak kii bu dee liñ may jënd deful dara ci sa njaboot. jéemu ci lenn te moonte lu ma ko déggal dem jéemu ci dara waaye yàlla mooy àtte bu dee nag man maa tooñ yàlla na ma yàlla toroxal ci àdduna mu feeñ. <laughs> bu dee maa bu dee liñ may jiñ day dëgg yàlla na ma yàlla toroxal ci àdduna ñëpp di ko gis. mais bu dee dañu maa tooñ yàlla nañu yàlla àtte ci àdduna ak seen njaboot ak yow man xëyam. AMS ndax gis nga seen soutien itam seen jàppale. AMS gisuma seen soutien association des maires. association des maire seet si wuñ ma am na wax ba ñu wax ci Saly mais loolu du seen taxawaay. mbay jonn moom ñëw na ci turu boppam ba mu ma gisee dafa craqué te yaakaar naa ni maire warul toll foo xam ne du nit da koy jiiñ loolu ndaw la ñu gàdd yóbbu tey su ma jiiñoon rakk Macky Sall rakk Macky Sall jiiñ ñu ko petro dafa tax ñu yóbbu ko tey su ma yeewoon ni tentative d'assassinat nangam jiiñ ko Aliou Sall dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu loolu tey moo metti c'est pas parce que ki jàppale sa coalition jiiñ na ni da nga ko gàdd yóbbu mais kon kilifa ci réew mi lu muy ñetti am na koo xam ne mën nga koo yóbbu parce que agresseur la boo xoolee casier yàgg na ko def. mais un maire xam nga ni man du ma nekk ci mbedd di sànni suuf di sànni xeer. te mosuñu maa dégg ci yu mel noonu yaakaar naa ne yomb na trop ji ne kaay ma la moo tax yaakaar naa ni am na loo xam ne bu ñu bu jëree tëj ay responsable am na ñu ñu war a tëj kon ci réew mi. am na ñoo xam ne fu leen neex ak lu leen neex la ñuy def ci réew mi maa tey la ñuy def gis naa fi xeex ci biir APR fu nekk ak lu leen neex la ñuy def. ay doomu responsable yu yor ay pistolet def fu leen neex ci dëkk bi donc man ci jiiñ kese la ñu yem ñu tëj ma xaj ma sama njaboot xañ ma sama commune moo tax Médina dama leen nar a jaamu ba dee aw ma seen fay ndakaaru aw ma seen fay ñi ci jàpp ñëpp man gëm naa ne sama desitu mandat ak li may def ci politique ñoom laa koy defal ndax amatuma seen fay. monsieur le maire man li nga wax dafa ma jaaxal parce que li nga wax dafa rafet ci Médina rafet ci Ndakaaru mais boo ko wékkee ci Khalifa Sall mun ma ko comprendre mooy taluma seen législative taluma seen dara na Khalifa Sall génn ci kaso bi. Papa Ngagne waaw yaakaar naa ni cest à kon yow xamoo da nga ma desee xam lu bari man post teguma ko fu sori bu doon post la damay transhumer wuti post député mooy lan am na ñoo xam ne du député mais ñoo gën député c'est-à-dire génn kaso rek ñu lay wax. te nga xam la nga bàyyee sa mag bu ma dee nit tey suñ ma ne woon démissionnel sa maire bi Khalifa Sall génn jaral na ma ko ndaxte xalifa Sall la boole dafa bari su ma lekk sama làmmiñ ci kaw du dërëm bu ma sa lekk du lenn lu ma mës a jox wante day nit koo xam ne nitu neen la bëgg na jàngal nañu àdduna 30 ans la ñu ànd jours te moonte ma gis ci ci dëkk bi ak ci parti bi ñoo xam ne moo leen defar de toute pièce ba jox leen i teraanga tey ñooñu ñoo ko woon gannaaw di ko wax ju bon. am na ku naan way leer na léegi Karim Wade dafa jox Bamba xaalis nañ ko seetaat mais kooku di wax dama koy fàttali man am naa. mérite muy kan Abdoulaye Wilane. ok man damaa bëgg mu xam ni. Mhm. man ci deux tours yi deuxième tour woteel naa Macky Sall. waaye man campagne lu ma woon Ablaye Wade ci deux tours yi ndax doon xaytu signé les Karim te li may wax am na promoteur de lutte bu ci xam dara bu dee xaalis génn ci oto kooku xam na ci dara. Mhm. pour parler de collusion avec mi man fa ma ne woon maa ngi fa ba léegi socialiste laa lekkuma ñaanuma kenn geste boobu laa rafetlu bu jiitu woon sama kër dinaa ko gërëm wante foogoon naa ni séq nañu loo xam ne ci ku ñu jiiñ condamné wuñ la. Mhm. tey rafetoon nañ ñëw sama kër seet sama njaboot ndaxte bu doon ñoom ma def ko. Mhm. monsieur le maire léegi lan nga gis ci ëllëgu parti socialiste lan nga ci gis fii mu nekk nii. lan nga gis ci partie bi. yow am na foo féete. gis nañu beneen camp boo xam ni jàpp nañ ni législative yi ñu ngi ci jëm lan nga gisal ëllëgu parti bi nga xam ne danga di moo nekk ci sa xol. parti socialiste parti bu baax la am na nit ñu am xam-xam. Mhm. am na nit ñu am formation am na de grands hommes et de très grandes dames bu ñu déggoo gëm sunu bopp mën nañoo sori wante bu ñu fañee xañee waa parti bi seen i ambition. bëgg leen toppaloo parce que li ma dégg mooy collision avec l'ennemi l'ennemi mooy le libéral mais bu ñu fàttali ni Macky libéral la tey socialiste yi ñoo topp libéral bi kon bu ñu ne bu leen ànd ak PDS parce que ñun Macky Sall PDS te jóge te libéral la donc tey ànd nañoo ak Macky Sall gunge nañu ko waaye nañu fàttaliku tamit am nañu njaboot goo xam ni war nañoo mën a teew. Hmm. parce que bu ñu toppee ànd bi bu yàggee ñu seeyal suñu parti man na damaa bëgg parti même bu dee juróomi nit nga taxaw léeg-léeg am sa am sa ñu ràññee la parce que PS. moomul toppee. PS yaatu na yaatu ko kenn mënul bootee man gëm parti bi tax man damaa gëm ni njiitu réew mii ñëwaat war naa mën a doon socialiste. ak ku mu mënti doon waxuma Khalifa Sall ak ku mu mënti doon dama gëm ne parti socialiste. bu ñu organisé woo lu ñu bëgg ci réew mën nañu ko am. d' accord na fekk ngeen organisé bu ñu organisé woo bu ngeen organisé mun leen am dara dans la division rien n'est possible. d' la division rien nii dara a di am division am ah na. oui rien n'est possible tey ni ñu divisé woon nii ñu demee ku dans la division rien n'est possible man su sañoo sañoon ñu gëm ni parti boo koy créer du pour toppee. d'accord de alliance nag mën naa am ci deuxième tour mbaal leen comme France nga jàppale nit mu gañe ndax kële sa adversaire la. Mhm. mais bu paree nga defaraat sa bopp mu ngi mel jigéen bu tase. boo tasee sa sëy. da ngay defarwaat jëkkër par wat léegi ci union boobu ndax mën nañ ci dem ba ngeen bokkaat toog Tanor toog ngeen toog. en politique on ne dit jamais jamais. Mhm. Tanor du sama ennemi yow déglu nga ma ne Tanor man ak Barthélemy ay Baye Fallam lañu woon. waaw jabar ji dama naan sama yaay ah, woon woon laa la wax. waaw Tanor man wutuma ci dara Europe laa jóge indi samay moyen mm-hmm. mais da nga ne ay Baye Fallam lañu woon. non dama weddiwuma ko. waaw t-shirt Tanor leen ko doonatoo leen ko. nekkatuma ko. d'accord dama ne t-shirt mm-hmm. Tanor su ma musaane yow moom laay sol suba ba 6 heures ànd ak xale yi di ko wëral Dakar di joxe ay prospectus. parce que loolu laa gëmoon dama gëmoon ne parti bi daa war a dellu. gëmatoo ko. non bi ma nee léegi. Euh, dañoo dem léegi ba dañuy sédd. Mhm. ah ah ah man nag politique ma pour loolu parce que politique ma pour wut ci dara dama gëm ne PS daa war a dellu si. Mhm. man damaa bëggoon ba ñu jàppalee Macky parce que nekk nit ci gouvernement terewul am liste. daan nañu ànd ak jàllar bi mu demal boppam après ànd ak PIT mu dem ànd ak Landing Savané mu dem ànd ak Ablaye Wade ñaata yoon ci gouvernement mu dem. Macky nekk na ci gouvernement mais terewul ni ba mu bëggee dem daa dem mais PS tey. bu yàggee dootoo dégg turu PS fenn benn bokk yaakaar ngeen di. monsieur le maire est-ce que dina yomb ak Ousmane Tanor Dieng mi jiite au conseil collectivité territoriale tey est-ce que loolu dina yomb na ko jàllar bi doon defee ni ko Ablaye Wade doon defee ni ko ñeneen doon defee est-ce que dina yomb tey. man daal du fi nekk di xarab Ousmane Tanor Dieng waxuma nga laaj. dama la président actuellement au dama ne na est-ce que dina yomb ci présidence boobu mu yor ko ba pare bëgg taxaw def face. ah loolu danga nga ko koy laaj. ah non attends. loolu da nga ko koy laaj ko gën a man ni nga ko xamee xamee wu ma ko noonu. loolu da nga ko koy laaj. kooku au président au conseil bi joxuñu ko pees Ousmane Tanor Dieng lañ ko jox. ndax itam ndax dama ne la joxuñu ko pees Ousmane Tanor Dieng la ñu fal benn nit mooy président du P parti mooy. président mais cëru PS la aussi. dama ne la yéene nañu ko ko. mais cëru pees la. bu la neexee yéene nañu ko déet Macky du sedd PS Macky Benno ak lay sédd xam nga li ngeen comprendre li indi problème yu bari yi Macky référence mu yor buy seet day seetlu Benno Siggil Sénégal ni LD ak PIT foofu ngeen bokk dem leen seetlu foofu day sédd bennoo ak tanoor bu ko defee ni Landing Savané ak ñoom Ali Aïdar foofu ngeen bokk da leen ngeen sédd foofu parce que ñoom la àndaloon du woon PS Tanor ba muy dem présidentiel demeewul ci tur parti socialiste parti socialiste membre la woon ci parti yi ko doon jàppale kon Benno ak Tanor la man nag damaa bëgg labelu parti bi ma koy gisaat di gis drapeau parti bi di gis étoile bu rouge boobu di gis Abdou Diouf di gis Senghor di gis tanoor tey dañ ko ko nangul Tanor du ma ko xarab am na jamono yoo xam ne téye na parti bi sonn na ci parti bi jàppale nañu bare bare encadré nañu tey seytaane ñëw na tey waxkat yi bari nañu mais lu mu bon bon bu dee bés liggéeyal la ko parti bi dama ko ciy gërëm di ko sant. di ñaan yàlla yàlla leeral mbir mi bu leeree. Mhm. su ma tooñee ñu dàq ma bu leeree bu leeree nañu nag su ma tooñul kenn gënu maa bokk ci parti bi. d' accord mais monsieur le maire man sage ci parti presque ci PS laa ko ëppoon di dégg. Mhm. est ce que seen role te taxaw nañ ko ak sage yooyu ñuy wax est ce que existe na ci biir parti socialiste. sunu sage yu parti yi moom yàlla na ma yàlla jéggal ñoom sage yu Ousmane Tanor Dieng lañu fa mu xoolee fa la ñuy xool man damaa dégg ñu naan waaw li kaso bi mën nañ ci bañ a fekk sage yi woo nañ leen ni bu ñu jéggaloo ñu baleen mais qui s'excuse ki yow yëgoo tinoo xamoo nga ne na nga ñëw jéggalu mais boo jéggalee yaa tooñ yaa ko def. te man officiellement mosuma jot convocation nañ na ma kan wax ci parti bi man militant bu discipliné laa. soo ma joxee convocation ni ma instance su parti bi la woo ma wuyu la mais ma laaj leen ci ñoom kan moo ma mës a jox convocation. man ndéem si yàlla Talas Diop moom ma woo këram ni ma demal nga wuy Paa Ngiraan soxla na la ma jóge fa ànd ak Pape Sall fekk ko fa jëw këram ni ko ah ma de Père Talas moo ne naa ñëw wuy si la mu recevoir ma ci suuf ñu waxtaan. kon man mag mu woo dama lay wuyu mais nañ leen laaj kan moo ma jox convocation ak kan moo ma jot téléphone woo alors dégg naa ko moom Ousmane Tanor mu ne 30 juillet coow li yëpp dina jeex. Mhm. mel ni ku bàkku ci am ndam. Mhm. dégg nga loolu wala déggoo ko. dégg naa ko. Mhm. wante yàlla mooy ki nga xam ne moom moom jamono te jamono ju ne lu ko soob mu def ko ndax ña ñu soog foogoon ne ñooy dem deuxième tour ak Wade yàlla tànn na keneen ci def ko la 30 juillet kat ci yàlla teg dina ca doon. d'accord alors avocat yu bëri aussi tàggoo nañu ak. Euh, xalifa Sall bokk na ci maître Aïssata Tall Sall bokk na ci maître El Hadj Diouf. Mhm. li ko waral mooy agent judiciaire de l'État dugg na ci. donc ñoom en tant que député mënatuñ ci bokk ndax loolu itam dana dana gën a dëgëral défense xalifa Khalifa ak avocat yi surtout ku mel ni maître Diouf. dossier politique justice du ko réglé politique ko koy réglé xoolal dossier politique yi fi jaar dégg nga fi protocole lu ne gis nga fi ni dossier Karim jeexee dossier politique politique ko koy réglé avocat yi foog ñu am ci dossier yi coow la yooyu wante dossier politique bu la ci dara ndax politique ko koy réglé. tey am na loo xam ne bu ko xalifa nangu woon coono dootul bari. ah bon Karim da ngaa xëy dégg ko la ñu la dem na ñu la région humanitaire ndax dafa am ay doom ak yooyu ak yooyu man aw may doom bi ñu may tëj. nga ni xalifa am bu ko nangu woon yëf yi jeex na. waaw ñoom xam nañ li may wax non non du joxu fii man du lépp la ñuy wax ci plateau. non loo xam ne ko nangu am na ci lu ma dégg ñu ne dañ ni woon bul def sa list boo deful sa list di nga mën a doo dem kaso loolu dégg nga ko. man sax ne woon nañu bu xalifa nangoo loolu ñu génn ma ci kaso yow wax nañ la ko. wax nañ ko xalifa ni ko boo nangoo lii sax bàmb mën nañ koo génne day mel ni léegi daf ci am ñoo xam ni ñoom ñooy juge ñooy procureur ñoom moom justice bi léegi waaye justice yàlla ëpp justice yëpp yàlla nañu yàlla àtt ci. mais négociation yooyu yëpp ci prison blâmée parce que ne nga am na ñu la fa fekk ñu bëri di am lu ñuy négocier bi nga nekkee kaso. ah non non non foofu fan laa waxee loolu waxuma loolu. d'accord man maa ngi doog a def déclaration kenn mhm. mhm. kenn négocié wul ak man ci kaso. d'accord wax ju na ñoo xam ni APR la ñu bokk. APR dama faa bari xarit dama faa bëri ay wóllëre bu mu nax kenn daf ci am ñoo xam ne samay magu bopp lañ te APR la ñu ne te politique du tax ñu ñu ñu ŋaayoo bu ñu politique yi guddi damay dem seen kër dañuy ñëw sama kër bañ ma tëjoo responsable APR yu bari nëbbuñu ko dañoo ñëw seet ma dem sama kër am lañ fa def ma leen di gërëm bu baax a baax tey su ma tuddee seen tur su ma ñu traqué leen. mais yàlla xam na yàlla nañ ko yàlla fay. <laughs> alors monsieur le maire maa ngi lay gërëm bu baax di la sant. Euh, di lay jaajëfal ci. mais foog nga may ma nag ma gërëm ci sa livre bi avec sa livre bi. sa livre liir na lépp. ndeysaan liir na lépp kontaan ci. ndeysaan ah. Euh, mun ma sa waa ji nag man foogoon naa ni ñun rek lay sànni xeer keroog bi El Hadj ñëwee nga taxañ ko di ko song mu ne mais sama waa ji moom tàng na tey di mi mu ñëw nga attaqué mu ne kon kii bàyyiwul kenn. kii farul fenn man ko nii la mel. prison bi nag liir man li ma fa liir neex na ma gëj naa liir. Mhm. gis nga Cheikh Yérim Seck laa fa njëkk a liir. Mhm. c'est Goulot qui la République. Mhm. li fa Cheikh Bamba Dièye bi. n'est-ce pas thérapie pour un pays blessé. Mhm. li fa si livre mu neex ma trop. donc fi nga jaar ak leader politique yëpp tamit neex na ma. Mhm. donc Sénégal benn bopp la. donc li may wax rek mooy yàlla na réew mi dal. Mhm. musiba yi fi am yàlla na dakk président de la république na yeggale jàmm ak mandaam yàlla traak yi am yëpp yàlla na ñu a retrouver wu ba lépp jeex ñiy jaxase te bëgguñu kenn juboo ndax bu juboo amee ñu nem chômage yàlla leen yàlla taxawal juboo am ci réew mi ndaxte lu fu jàmm am moo gën fu jàmm amul te réew mi war nañoo passé ak fi ñu jaar yëpp ñu naan politiciens yi ñu ngi tëjante kaso tëj kaso ci politique daa xew yi. d'accord ma bàyyi la aussi ba tey ci Medina nga gërëm leen bu baax parce que àjjuma bu jot ñu defal la ñaan loolu yaakaar naa ñi ko fi am itam bariwul. Medina. Mhm. déggoo ma ne la sama desitu dund amul maa bokk ak moom parti amatul bokkatuma ak moom parti dama leen nar a jaamu ba dee. billaahi wallaahi mënuma leen a fay. samay mbokk samay xarit commercant yee ñëpp ak ñi ma xamul chauffeur taxi si avocat yi avocat yi dañoon duñ ma fayeeku dara bamba duñ la fayeeku dara parce que lii ñu la tëjee bu continuer ëllëg ku la ëpp doole dina la tëj ci kaso bi soo ko seet lu mu lay jiiñ tey élan boobu laa sant ko wax mu ne la même prisonnier dañu bamba ñun bu ñu nekkoon ci bi dañu lay xeexal parce que lii mooy wane tey boo bokkul ak nit gis-gis te mu ëpp la pexe ci réew mi dina la tëj ba pare di wër télé yi di wut la jiiñ mhm. kon tey war nañoo bàyyi ba nit ki mu leer la ne def na nga tëj ko may ñaan avocat yi. Mhm. ku ci amati client. Mhm. ñu am mandat de dépôt bu ko abandonné. parce que yow la yaakaar nga génn ko ci dossier am yàgg na te boo ko doon seet xëy na nga fàttali ko dem seeti dossier am di ñaan juge d'instruction yi ñu wàññi mandat de dépôt yi nit ki bu amee garantie nañu dem di ko nañ ko gëstu ba mu def ñu tëj ko. Mhm. di ñaan tamit chaque ngoon parce que prison bële day jël à peu près trente ba cinquante personnes par jour lu ne lañ fay gàddu indi te am na problème yoo xam ne mën nañ ko régler police may ñaan tamit délégué de yi ñu régler yenn problème yi kaso neexul kaso neexul gisoo sa doom gisoo fenn lekk ba ngay lekk tëdd ba ngay tëdd demeewul noonu sa wér gu yaram sa xol neexul lu ne nga xalaat ko sa jabar ñëw nga sonn ci moom mu xëy suba ni la may ma baat nga fanaanee jooy loolu ana say doom seetatuñ la am na ci ñoo xam ne kenn seetatu leen am na ñoo xam ne seen xel neexul am nañu ku tudd Ablaye Cissé ko fa nekk koo xam ne sonn na loolu maa ngi ñaan yàlla ñu toppatoo dossier am libéré ko forum des libér justice li xaw ma libérable ñooñu forum de justiciables mhm. maa ngi leen di gërëm gis naa seen taxawaay di gërëm surtout presse bi tamit parce que seen waar bay nañ ko ci donc du Bamba Fall rek la ñu défendre dañoo défendre dañoo contre l'injustice mhm. kon boog maa ngi gërëm Sénégal di gërëm ñi ci jàpp ñëpp te ñaan yàlla lii yem fii mhm. ñaan yàlla un maire na yëpp taxaw maire dañ koo fal mu am lu mu war a représenté yaakaar naa ne un maire ci de simples accusations wala ñu ko tëj ci kaso yàqul du deru Sénégal deru Afrique bi yëpp lay yàq parce que bu doon Europe am na candidat yoo xam ne en examen lañ leen mettre le temps ñu xool seen dossier nañuy mettre nit ñi en examen boo dee kilifa le temps ñu xool seen dossier. voilà jërëjëf monsieur le maire Bamba Fall mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ñu doon ci recevoir le maire Bamba Fall am mbégte lool ci ci ci dalal ko ci seen plateau Faram Facce di gërëm la régie ñu ni ñu jàppalee ci émission bi di leen jox daje incha allah alarba bële di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf.